loolu jëfi yàlla la bi taggkat yi di tagg sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam sëriñ tuubaa dani tagg yonent bi day mënuta ñàkk ndax ginnaaw yàlla nee na ko wa innaka la ala xuluqin azim nit ñi sax dina ñuy wax yàlla tagg na yonent bi mais njuumte la ci waxin mais yàlla moom du tagge ndax ku ne la nga yor ba ñu yéem la ba di la tagg yàlla la ko jox te ki lay tagg da koy yéem jëkk mu door laa tagg te yàlla kenn yéemu mais da doon wax nit ñi ni fi ñu baax ñi yem ci jikko ju rafet nga xay yonent yi ci aadama ba ci Isa nu Maryam kenn munte yëkkatee ci benn jéego ci jikko ju baax cheikhul xadim ni yàlla nag nee na foofa la yonent bi tàmbalee moo tax mu daan wax bidayatul maahi nihayatul xiyaar sama waa ji ma àndal fa la ñu mu ni nag faddalahu ala alwara suul ixtiyaar nee na loolu nag booya boo ñépp kontaan ci parce que ki nga xam ni ak tànnam képp wér muy ah. yàlla moom lu mu tànn rekk amul en tout cas ku ne mën ngaa tànn juum ba mu des yàlla sëriñ Tuubaa ne yàlla moo tànn Muhammad teg ko ci kaw ñépp sallallahu alayhi wa sallam moo tax mu ni nag li tax man yi tagg ko daa munte ñàkk waaye kon du jar dugg ci sëriñ Tuubaa ni ko ndax maqaamuka an ahlil maqaamaati gaaibun mu ni boo ko weddee nag wa fil fatxi maa yakfi wa fi suurati najmi ne na ko maqaamuka sa daraja yow Muhammad loolu nag ci ngay janoon nga xëy boo nee nii loxo laal ko ulamaaw naxwu xam nañu ni kaaf googu kenn du ko wax ak koo kon bi mu ko naan maqaamuka mi ngi janoog moom bokkul ak ba mu ko naan maqaamaatu xayrul xalqi boobu nit ñi lay séen mais séenu ko moom mais bi mu ko ne nag maqaamuka booba dafa janoog moom daanaka bu ko sañee joxoñ dana ko joxoñ ni ko maqaamuka yow sa taxawaay ak sa daraja ak fa nga egg ci yàlla raibun ump na an ahlil maqaamaat yi ci ku ñuy tudde borom maqaama rek xamut yaay kan mu ni bu ngeen ko weddee nag wa fil fathi maa yeg fii demal ci suratul fathi inna fatahna laka fathan mubinan da nga fa gis lu la doy sëkk ni muhammad amul moroom boo ko mokkulul demal ci suratul najmi wa najmi isa hawa ma dalla saahibukum wa ma gawa da nga xam ni muhammad amul moroom صلى الله عليه وسلم ماني ماني ياو نك واو ياو ياو ياو لي لي ما بغي واخ موم تي ياو مان كوي واخ تي سيدي سي يالا رك لا داما جاب تي ياو لو خامي با في مي واخك ياو نيو نا مان لوماي ريبيت اي واخ نيت يوم مي لي ما جاب تي ياو دوما ديف ايميسيون تي ريبيتي موكو نداخ ييم جي ما ييم te bi ma koy xam di ko dégg booba daanañ gise mais gëj na mais cib rajo la ubbi dégg kenn ci sa jëwriñ yi mu ni Cheikh Abdul Karim Makarimul laax nee na képp ku di ab taalibeem bu jàpp ci moom ngir Sëriñ Tuubaa jox na la ndigal nga jënd benn puus puus bi nga xam ni seeni ñi nga xay seeni tànk dafa xaw am na nattub yàlla ñoom laa koy jagleel la ma ca gën a ñor mooy bu ma kenn indil xaalis ku may indil rek nag ma indil puus puus mais xaalis moom bu ko kenn indi di ma ko jox ba pare xamle ni moom ci boppam jënd na ñaari junniy puus puus te man maa ñëw ba teg ci sama bët fii la ma ca gën a intéressé waat moo di amul nag ku loolu dal nga di murit wala nga di tiyaan wala nga di xaadir wala nga di layeen képp ku wax la ilaha illallah muhammadu rasulullah te jàngoro ju mel noonu dal la bu la yàlla boolee ci lii sa gosa ci ma dégg ko ci rajo bi loolu yéem ma lool lool lool ma xam nag ni ku doon ci sëriñ Fallilu Mbàkke dara ci sëñ Fallilu tibb jox la yërmande jë sëñ Fallu aman faw dañ ko am yërmande nag munta weesu loolu loolu rëy ci man ba fii may waxe ak yow amul benn émission bu may def lu dul dinaa ko répété lu ma ca jublu mooy naw jëf ja waaye bëgg itam ñi nuy déglu di roy ñu baax ñiy def lu baax te yàlla rek tax Mbàkke kon ñu ngi lay ñaanal nee naa leen tudd aw tur yomb na waaye mel ni tur wa yombut yow makaarimul axlaax la la ñépp tudde mais jikko jooju nga yor nag ca man wóor na ma ni sama bàmmeel man képp ciy tëdd te lu ma waxan man mii lañ koy laajaat kon nag du ma wax loo xam ne lii bu ma malaayika yi laajee te malaayika yi moom duñ la laaj ngay nakk-nakkal tontu rek wala duma kon nag lii ma wax ci yow billahi lesi la ilaha illa ku ma jox ab kaamil ma dóor ci sama loxo kii nag eh, ñoom ñi gën a baax ci lañ bokk Cheikh ma Cheikh Saadu Jibril bii ñi gën a baax ci lañ bokk ndax seen maam suñu seex jimbiri ci la bokk ndax ñi seex saat bu defar ci gërëm ko te seex saat bu bari na ñu mu defar mais ni leen jërëjëf bariwul waaye maam moom ñi seex saat bu defar ba noppi ñu ko jërëjëf ci la bokk ñoom it jikko jooju lañ yor nag euh, magam di sëñ maam Mori jimbiri yi ni mu meloon ci man ëppoon na ba fi meex amul alxames moo dul tege bàndam amul ak ku ma mën di waxtaanee su ma desee quinze minutes dina teg bàndam lu tax tawhid ba maam gis nga karbala bii mu la jox bi ñu ciy tagg Seydina Xuseynu tawhid bi mu am daf ni jooyu ma dem ga ndax benn jaam du des mais dem yéen wu ñaaw walaay jooy kon jooyu ma dem ga parce que man xam naa ni benn jaam du fi des waaye demeen wu ñaaw wa nag laay jooy loolu nag yàlla digle na ko ndax yàlla bu ne bu leen masiba dikkalee kon xam na ni masiba day dal nit te masiba mooy lu metti moo ni delloo leen lépp ci yàlla maam moor yi noonu la def dañuy jooyu ma dem ga parce que wóor na ma ni benn jaam du des ci àdduna mais demeen wu ñaaw walaay jooy tabarakallahu waaye Seydina Ousseynou itam nam ko waxee rek biñ ko teree tere ba doom ji jigéen ji génne suuf si si xong te yonent bi noonu mu weexan tàll yonent bi ni bis bu xongee rek yow Ousseynou sag dem jigéen a ba mu ko génnee won ko ko mu ni ko waaw même bu fekkee ni sama dem jigéen te yàlla dogal na ni ci dem ji laay dee ana kan moo am kattan gu wëlbati loolu xalaat ci wéetal yàlla la faatu kon nag lii mu def nii dolli na relation bu baax diggante seexul xadim ak seex na seex Saliou Abi dégg nga woyu seex na seex Saadu ab yi wax def ni Serigne Touba maadinun nee na nee na euh, mbell la mbell mooy lii ne ci biir suuf or ci la xaalis ci la pétrole ci la jamaa ci la kooku la ñuy tuddee maadan seex na seex Saadu néewul Serigne Touba maadan la woon dañuy maadin la ay mbell yoo xam ni kenn mënu koo lim waaye mi ngi woon ci suuf. كن خمول فمتلو خنا خموني بترول بيني وقت السنغال نيو في برك ديم بسل سي امي بالي مين في مي فنجي نك داي ام لوكو فنيال شيخنا شيخ سارابي ني بي توبا بي تيغي لوكو سيرن توبا ديني دنج كوي مدي نك تي مبل موم نيوم نيوكاي فنيال موتاخ موني اجلت هو نصارى توبا يوي نك نيو سولي مبل مي با نييب جيسكو دغلا léegi ban bis moo gën a rëy bis bis bi ñu tegan sëñ loxo sëñ Tuubaa loxo muy dem ci géej gi amul waaye bi ko tubaab yi tegee loxo mbell moomu ci la feeñ mooy am bu bisub tey jii kon ñu ngi leen di gërëm ci lii ñu dox waaye li nga leen tontu doy na li ñu indi ci seeni kàddu yi doy na sëkk yal na yàlla boole nu defal jàmm man de maa ngi lay gërëm maa ngi lay sant maa ngi lay siyaare di la ñaanal te di la xamal ni man de man na maa waat ci alxuraan man nii séddu nga ci sëñ Fallu cër bu wér yal na yàlla gën a yokk saw fan yal na yàlla gën a wéral saw yaram sa cër bi ci sëñ Fallu yal na gën di yokk Cheikh Mouhamad Fadul Mbakke yal na yàlla dolli ko koleer te taas na ci barkeem nun ñëpp sëriñ Abo mi ko fi toogal yal na ko fi yàlla yàggal Cheikh Mouhamadul Muntaqa yal na yàlla gën ko fee yàggal maa ngi lay gërëm maa ngi lay sant bañu ñu màggalee ba léegi maa ngi Tuubaa damay dem ba rek def sama émission dellu si waat bàyyi fi sama waa ndax damay def bu ma fi ñëwee màggal dama naan bala maa dellu dañuy gàmm ba noppi ndax damaa dégg sëñ Saalihu Mbàkke mu ni sëriñ Tuubaa gàmm la daa def màggal mu digle ko mu ni nit nag boo bëggee am ngërëmam dangay dangay dangay jàpp ca la mu daan def tey def la mu digle moo tax ma ñëwee Tuubaa màggal damay toog bañ gàmm ba noppi ma door a waaj dellu moo tax comme tey laa bëgg a dellu nag eh, ndakaaru incha allah man du wax ñibbi ñibbi moom fii laa koy def waaye dellu nag ci liggéey ba waaye man ni nag Cheikh Abdou Karim moom ñaan naa yàlla bala maa dem siyaare ko tàgg ko mu ñaanal ma ma ànd ak sama doom yi nga xëy dañu ni ñoom bu fekkente ni du ma du ma dem ñu ngi may ñaanal yàlla bu ma la gis ñu nga ne loolu xale te yu ndaw du leen wóolu man leen ko nan dem ah bi ñëwee itam awma benn jafe-jafe ba dugg ba ak si fii Mbàkke yàlla boo am benn jafe-jafe ci àdduna ci barke Serigne Touba Mbacke maa ngi leen di gërëm maa ngi leen di sant maa ngi leen di ziar wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu jërëjëf